Ah, door salaamaaleykum mbokk ñuy seetaan seen site internet Lutte TV waaw mbokk teg bànneex rek la am saa su ne di ànd ak nag ñu seet si ki nga xamante ne nii tey mën nañ ne mooy làmb daanaka parce que ku ne Ambroise Sarr xam ko ci làmb ku ko xamul tamit dégg nga turam tey ñu seet si ko rek fas yéene seq moom waxtaan du ñu def dara lu dul nuyu ko rek bàyyi ko mu nuyoo papa ñoo ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. am mbégte ngeen fekk ma fii pour laaj ma rek que man làmb lay dund moom laa moom laa xam. waaw tey Ambroise kan mooy Ambroise pour ñu la xamul di la dégg. ah Ambroise bi nga xam ne maa ngi dëkk Palmarin Ngéej juddoo fa yaroo fa màggee foofu jàngee foofu mbapat ba si ci Ndakaaru dugg ci arène. ba dugg ci olympique bi dem fu ne Ambroise Ngok. Ambroise mën nañu wax kañ la commencé bëre. waaw mais bi ma nekk euh, xale à l'âge de cinq ans la ñu commencé bëre ci tefes bi donc foofu lañ tàmbalee ba nekk ay mag ba heure bi ñu toll nii ba léegi jógaguñ ci cadre làmp yan arène nga fréquenté yan arène nga mës bëre. Oh, mais xam nga bi ñu ñëwee Dakar e, arène bi ñu doon wax sugangaak ci almenku foofu lañ daan bëre ba arène yooyu jeex ñu ñëw ci ay Robert Delmas ay Émile Badiane foofu làmbu joolaa la donc ba jógee foofu ñëw arène sénégalaise defe naa xale yu bari xamuñ fi arène sénégalaise arène sénégalaise mu ngi nekkoon face mais ci combat mbay Guèye ak booy Pambal foofu la yàqoo. waaw ndaxte mën nga ñu wax tey gain wala ndampaay bi nga njëkk a gagné si bëri simple. waaw mais xam nga ñun li ma njëkk a gagné ci bëri simple drapaloon rek ak 2500 parce que loolu temps bu loolu moo xew loolu ay drapo moo xew bu bëree ba bëri ñu jox la 2500 foofu lañ njëkk a gagné ci ay drapo sa bëri dóor. première kase. ah suma première kase dóor nekkoon na deux cent cinquante mille parce que boobu saa yu deux cent mille aussi xaalis la ci jamono boobu oui. kase bi gën a mag bi nga gën a bëri ak souvenir bi nga gën a gën a neex bi nga am si si wàllu làmb. ci wàllu làmb un million la woon man ak Birahim Ndiaye ñu fay ñu ku ne un million kay du yuuxu ne wuu loolu dafa bëri fu mu ne nii xale yu tuuti sax bëggatu bëggatu bëggatuñ ko gis nga àdduna dafay dox sa combat bi gën a métti dër bi. waaw man ak Birahim la waaw kooku moom dañu bëre ñaari yoon niil mais niil boo xam ne wax dëgg yàlla ñëpp képp ku seetaan si rek bëggatoo sax kenn daan waaw. combat boobu moom ba nii nii nii sax ñi ñaa ngi koy waxtaanee euh, sa première sélection équipe nationale. oui c'était en en soixante seize en soixante seize Montréal laa njëkk a équipe nationale. Euh, dem fune ne door a ñëw Jeux olympiques de Montréal c'était en léegi man suma première fi may jëlee première titre c'est un nouveau africain c'est à en Égypte foofu nag histoire la bu rëy foofu parce que dama ñëw jaare olympique wàcc ci ci ci Afrique donc ki ma fa fekk nekk champion d'Afrique deux fois xamum man may kan léegi premier tirage lañ tase moins de trois minutes ma éliminé ko moom mu jóg di xaru di dóor ci bang yi di def lu nekk donc parce que xamuma waaw. Euh, impression mooy bi ñu la njëkkee sélectionné équipe nationale ak histoire bi nga amoon ak policier bi fee sa ñaame Niger la foog naa. waaw mais xam nga foofu. dañu nekkoon dix personnes dem ñaame ñaame ma def loo xam ne jaloore la parce que ñoom gis naa ne daan rek neexu leen il faut nga daan leen avec la manière bi ma xamee loolu nag laa ñëw takk suma adversaire ñu ko wax kataki ceinture que ci suma dënn def ak moom demi souplesse parce que olympique bi moom moom may def loolu ba may départ gis nañ ne man may daanu mais à la fin dama dupp ci kawam foofu. xaalis bi di daw di daw docteur kan mu ngi may dëgg moo tee xaalis bi bi ñu ñibbee bi ñu ko wëñee un million la euh, policier boobu nag boobu xale la boobu nekkagul policier léegi man ak docteur Raymond ñu dem jëndali xale yi di bi boobu dema yóbbu équipe bi ñaame ah, boobu entraîneur laa yóbbu équipe bi léegi alkaati bi jaal jël sens kii bi pour euh, que taximan bi jaal sens interdit bi léegi nag policier bi jàpp ko boobu man maa ngi ci gannaaw Raymond mu ngi ci kanam ak blouson Sénégal léegi bi mu yundoo gis blouson Sénégal mais yow vous êtes Sénégal mu ne woy mu ne woy Ambroise mu ne mu ngi ci biir mu ne foog ma wàcc ma wàcc mu xool ma mu ne yow taximaan bi am nga sens parce que kii moo tax jàppuma la waaw. sa sa titre yi en tant que entraîneur ñaata titre nga am. man da ngay wax ne ñaata titre nga perdre waaye waaw ñaari yoon laa ko perdre mooy. première francophonie bi c'était au Niger foofu laa ko perte sinon bi ma Nigéria di dóor fii waaw donc ñaari kii mais sinon li ci des yàlla moo ñuy may ndam. est na la woo décoré la pour service rendu bon eh, décoré oui parce que à temps Ablaye wax dëgg yàlla paa bi woo nañu. may nañu xaalis mais quant à wax dëgg yàlla mosul am mais nag xëj na dafa jotagul bu jotee rek dina yomb oui. entraînement yi naka la daan demee écrit séeréer tey ngeen di nekk aslem fi nekk fi fii sodi daa nekk léegi. waa xam nga ñun dañ daan liggéey ba wàcc rek ñëw entraîner après ñibbi bokkul ak xale yi nga xam ne vraiment dañoo gën a seen entrenement dugg ci salle yi di fay ñi leen di entraîner. donc ñun amuñoon jot pour di dem ay salle mais nag bu ñu wàccoon nag dañuy dem à partir de cinq heures di entraîner ba dix-sept heures dix-huit heures dix ba dix-neuf heures ku ne ñibbi. mbër séeréer yi parce que mbër daawul ñu dëkk jékki rek nekk mbër daal critère de choix la daan nekk euh, si dëkk ba nit ñi nañ naan nan naka la nit ñi daan choisir mbër yi. waa mais xam nga ñun aussi fekkewuñu choisi choisi fi ñu choisir ne kii parce que li nga wax dëgg la bu njëkk mag yi dañ daan taxawal mbër ci première pluie bi mais wax dëgg yàlla ñun fekkewuñu lool ñun daal jàng nañ suñ bëre parce que aussi mag yi aussi ñun entraînement bi ñu daan def ñoom aussi ñu ko def dañuy toog ba saison bi ubbi rek ñu préparer la mystiquement alors yaay mbër mi mais ñun fekke ñun daal dañu di entraîner rek ba nekk ay mbër. tête de file nu ñu ko daan choisir si écrit. non tête de file kooku ay wax la rek supporter di wax ay kii ay tête de file la ak ainsi de mais tête de file moom mosul exister. kan mooy Culiyaande ak lan la représenté woon pour yow. <laughs> Ah, kooku mooy sama papa nag kooku ñoom ñett la ñoon yaa jogo yaande moo ma jur. cuul topp ci si ñam topp yëpp ay mbër nee na sax seen jigéen kincaam bu nekkoon góor sax doon mbër sa sa diggante Palmarin ak Alma ak ba arène Adrien Senghor mais xam nga boobu daaw ñu def ay combat kooku comme tournoi yi xew nii rek ci yooyu laa daan yëngu mais ay combat yooyu vraiment gisoon naa ne daal amuloon xaalis te bëri na coow te sotti que man li mu gënoon a bëgg muy ay tournoi jël naa ay tournoi yu bari fii à Dakar parce que tournoi bi ma njëkk a njëkk a jël maa ngi ko jëlee su gàngaak nag lañ tegoon te temps boobu nag nag nag saa waay pour nga jël ko beneen affaire la. combat Robert Diouf Moussa noo ko dundee. bon combat Robert Diouf wax dëgg yàlla dama ko déglu rek man demu moon seetaani parce que boobu daf ñu ay xale ay xale lañu boobu duggaguñu ci arène. Euh, sa carrière noo ko daan gérer ak liggéey bi nga daan liggéey Malboro. waaw amee mooy li ma la rek man dañ ma daan may au lieu kon may wàcc ay dix huit dañ may may quatre heures ma wàcc dem entre na ji même bu fekkee ne damay dem euh, préparer pour euh, compétition international dañ may may ay ay ay ay jours yooyu nga xam ne dinaa mun a am jot pour entraîner ji parce que wax dëgg yàlla saa yu moon dem indi médaille d'or équipe Malboro bi yëpp ñoo may teeru si à l'aéroport jël si ma foofu indi ma. sa souvenir bi gën a neex si arène séeréer ban la. Ah, bi gën a neex ci arène séeréer mooy ma tase ak ndem euh, euh, si yàlla. Euh, euh, euh, comment dire le gars de fàtte naa tu vois fàtte naa tu sa relation ak fa docteur Doudou Faye. Doudou Faye docteur Faye waaw docteur Faye kooku maa ko indi Dakar parce que Kaolack la nekkoon di di bëre foofu su ma benn xarit gis ko foofu. te suma waay la ñu ko wax Malick Ndiaye nekkoon service de mine ne mu Ambroise gis naa xale boo xam ne mu nga kaw la bu ñëwee fii dina doon champion te vraiment man dama ko bëgg comme ni ma la bëggee man ah kon bëgg nga ma ni nga ko bëggee amul problème dinaa ko seeti dinaa ko indi ndakaaru ba may dem it man ak Ali Faye ñoo ànd di ko wër ba fekk ko buntu cinéma ñu wax ko ne ah yow de yaa ñu indi ma wax ko mbébét bi nga xam ne Malick loolu la amoon ci moom moom mu ñëw fii bi mu ñëwee fii aussi ñu héberger ko à Grand Yoff fii commencé di ànd di entraîner ba mu doon li muy doon quoi. Euh, équipe nationale mbër yi critères de sélection yi nan lay demee. waaw mais xam nga ni muy demee yow gis nga ma temps yi yëpp maa ngi ci arène bi di xool xool rek lay demee parce que dafa am ñoo xam ne dañuy yéeg si donc ñu ngay xool boo leen xoolee ba pare. nga def benn VSD da ngay convoquer vingt mbër catégorie bu nekk ñaar léegi nga defa moom vendredi samedi dimanche bàyyi leen ñu dem ñu toogaat un mois nga convoquaat yeneen vingt toog ak ñoom vendredi samedi dimanche bàyyi leen ñu dem donc déjà am nga foofu quarante mbër waaw ci quarante yooyu nag boo ci soxlee dix day yomb boo soxlee cinq day yomb parce que équipe nationale cinq cinq la parce que critère de sélection yi dañuy gis ñeneen ñi di contesté ñeneen dañuy naan ne des fois sax da ngeen fi bàyyi mbëri yoo xamante ni ñoo dàq bëri mbëri dem est ce que nekkul ne mbëri yëpp a mën bëri. non mais xam nga bëri bii du benn am na ñoo xam ne seen foor il faut que ñu jàpp pour door a daan te foofu amul amul amul kii amul jàpp ba pois bi aussi dafay jouer mun nga bëre te yow pois bi nga nekk am na ku la ci mën ah loolu la. Euh, combat Modou Lo taxaw na revanche bi noo ma koy analyser ah man de xam naa ne daal combat boobu ah dina métti xamul tax parce que du dafa daan Eumeu Sène te Eumeu Sène dafay bugg a fayu donc combat boobu dama ne mun naa wax ne sax xëj na mooy dàq combat bi bu weesu parce que xamul tax ma wax la ko parce que combat bi weesu du ñu ay nattangoo bu fekkoon ne olympique la duñ bokk catégorie mais bii gis naa ne bu dee olympique dinañ bokk catégorie parce que su tante wuñu. Eumeu Sène est-ce que du nekk risque si moom mu yore titre roi des arènes ba pare di compétir ak Lo. ah non kooku du risque parce que boo nekkee roi des arènes aussi toog ak moom doo bëri amul sens roi des arènes kañ da ngay compétir ku ñëw pour nga maintenir sa sa sa roi des arènes mais il faut nga prouver at parce que daan ki rek toog 10 ans. amul sens il faut ngay bëree won ne fii man maa ko yor maa koy téye ba bi ko yàlla di dindi. Boy Niang Lac de Guiers ñun ñëpp ñee ñoom ñaar ñaari ku nekk day calcul combat boobu. waaw xam nga nag ñoom ñaar yëpp duñu dem kat booy Niang dafay arrière buy ñëw doo ko yëg euh, Lac de aussi moom da lay déglu loo ubbi mu ñëw donc moo tax combat boobu man daal dama du combat bu mun a gaaw. noo gisee mbër yi dem bitim réew parce que boo ñaa gis nañ si combat bi mu nga Japon di préparer combat am. Euh, waaw mais man dama gis ne xëj na ci lay gën a am tranquillité euh, ci lay gën a mun na liggéey parce que xam nga boo nekkee fii fan yi xam nga bëgg nit dafa metti ba te su teg foo foo toll euh, nañ dem fale nañ dem fale xëj na loolu boo demee bitim réew loolu yëpp da koy échappé. man daal loolu laa ci gis mais du question ne xam-xam la uti ou bien nangam la uti mais tranquillité daal mu a gën a concentre pour liggéey dama teg ne daal loolu la ñuy liggéey ci li ma foog. Gris 2 Reug Reug kenn amagul defet yow yor nga Reug Reug mu nekk euh, ni ñu koy waxatee sax mu nekkoon sa poulain nga entraîné ko di ko yóbbu ay compétition moo rëbb rek Gris 2 Gris Fass ñu gis ni Reug Reug bërëm yëpp day takk te Gris gis nga bassin bi ni mu yaatoo est-ce que loolu noonu avantage la si Reug mais xam nga Reug ci boppam. yaram bi yëpp bëri la lu ñuy wax kañ xeex ba waaw mais yaram bi yëpp bëri la rëg-rëg dama la ne nii ma ko gisee nii bu continuer nii dina dégg roi des arènes man maa la ko wax. est-ce que tey champion yu mag yi tey ñu ngi lay seet si pour ay conseils en tant que un expert en tant que vétéran si làmb. non mais xam nga man wax dëgg yàlla comme dama sori. Eh, mun naa am moo tax ñëwuñu waaw te du dara pour nit ki aussi nga ne dama koy séri boo ma wooyee boo ma laajee loo xam ne xam naa ko man dinaa ne ah, waaw lii ak lii ak lii la mais nag comme man maa ngi au village ben loolu la. waaw Balla Gaye du dox ko maam ak Ama seen sottiwul instant bii tey boo ko doon jox jox mu bëre moom fi mu toll ah moom Balla ah mais xale yaa ngi fi xale yi nga xam ne ñu ngi yéeg. parce que garab ci kaw la ñuy fekkante parce que moom ba muy yëg ci xale yi la commencé jël mag yi daan leen xale yooyu aussi il ñu ñëw pour jéem a jël seen place waaw. parce que Boña da ko doon laaj mais Boña bu génnee si combat bii nii est ce kon du jaar mu bëri ak Balla mais xam man daal dama wax ne daal bëri daal bu fekkee ne dëkk naa la nga ne yaa ma mun ah damay bëri yow parce que mun bi moom la nit ñi soxla nga yokk sa palmarès. lan ngay tëjee rek si gàttal. ah xanaa di leen gërëm eh, li ngeen jublu yàlla may leen ci ndam parce que wax dëgg yàlla yéen a ngi sukkali làmb parce que ñi nga xam ne daaw ñu seetaan làmb ñu ngi koy seetaan ci seen tele yi wax dëgg yàlla kooku eh, mbégteel bu rëy la. non fàtte naa sax système pay per view noo ko gisee parce que. pay per view mooy code yi gars yi di jaay pour mën a seetaan. comme ñu amul opportunité tey dem stade toog seen kër seetaan làmb ji. bon am na ci ñu mu baax am na ñu mu ci baaxul. parce que làmb ji passé wax dëgg yàlla ñi nga xam ne dañu bëgg làmb sonn nañ ci parce que dañoo ne boo amul xaw ma code bi boo jëndul code bi doo ko seetaan. mais man mi fan laa ko mujjee seetaane Suisse laa ko mujjee seetaane parce que xale yi ñoo ma partagé ci suma téléphone pour ma mun mun koo seetaan kooku aussi coono la parce que nit ki aussi nga tëre nit ñi teewul nga am li nga war a am nit dama ne da ngay kii dangay gëm yàlla te xam ne am na ñoo xam ne déplacement rek bëgguñu sax seetaan ko ci télé bëgguñ ko seet déglu ci rajo ñëw jàkkaarloog ñooñu aussi il faut ñu ñëw mais ñëpp mu ñu ñëw c'est pas possible. parce que ñi ko ñi ko andi ñoom Canada euh, fi lañ jóge dem bitim réew jàngi gis système pay per view gi ni ko gars yi defee si box ak ni mu yëgalee box boxeur yi di fay ko ay yu rëy moo tax ñoom tamit ñu andi ko te ñu gis ne tamit ñëpp mënuñu dem stade kon tey ñiy jënd ko tamit da leen di permettre tey ñu toog seen kër mën ko seetaan à l'aise waaw mais xam nga dama la ne gis nga ko bëgg a làmb dëgg dëgg dëgg xeeb nga tele ñëw jàkkaarloo parce que xam nga lay ne ci làmb ji yëpp mënoo koo gis ci télé bi ubbee si sa téléphone ambiance bi doo ko ci gis am na yoo xam ne amateur dañu bari am na ñoo xam ne woy yi ñoo leen di yóbbu ñii tuus bi moo leen di yóbbu ñii fecc bi moo leen di yóbbu ñii def ay garab yi moo leen di yóbbu ñii bërëb bi indi leen donc amateur bu nekk am na loo xam ne moom la ci gën a soxla donc mais télé bi mënu la ko may c'est pas possible. lay wax sa TV daal ci kam ci kaw ci kanam rek. waaw yal na bu leen càtt dugg. to ah, simlay